click foot bi ma créé day dajale l'ensemble des terrains de Dakar ak du Sénégal sax fu way mën nek da ngay am les disponibilités à temps voulu ci sa écran téléphone donc ci sa salon mën nga tok ubbi sa écran dugg ci application bi xol terrain bi proposer heure bi la arrangé nga jël ko donc semaine bi yëpp dañuy liggéey weekend nga bëgg xëy na décompressé ak sa passion dem football yi mais terrain boo wootee heure bi ñun la disponible na wala am na ko ko war réserver et cetera et cetera te ma xam ne jafe-jafe boobu ñu ñu bëri dañ koy dund ñu bëri dañ koy dund jeunes yi koo ci laajoon daf la koy wax donc automatiquement ma ne mais pourtant bu ñu amoon benn plateforme boo xamante ni calendrier am na net bi am na application am na mais terrain bu ci nekk yow mën nga dugg xool ñoom ñu wax la ban heure moo disponible nga jël ko te léegi paiement mobile tamit am na donc ci laa ko xalaatee. exemple su ma choisir le terrain de Azak bi nek fii aéroport euh, Léopold Sédar Senghor bu njëkk ba su ma voir gis nga daf may génneel tarif bi génneel ma information yëpp ci terrain bi daf lay jox sax localisation terrain bi pour bu fekkee da nga invité sa benn xarit mu ñëw ci match bi te xamul terrain bi mën nga ko partager localisation bi localisation baa ngi ak le bouton partager la localisation donc da nga le bouton réservé bon Réserver. da lay une euh, plage horaire on la heure disponible boo xasee ba tànn heure rek confirmation la lay andil léegi boo sécuriser euh, réservation bi daf une condition les conditions de réservation accepter accepté si ça si daf une fi ngay mën a fayee par Wave Orange Money ak même carte Visa wala Free Money wala beneen moyen de paiement mais effectivement ñu ngi xalaat développé ko yokk ci yeneen fonctionnalité et ñu ngi xalaat sax intégré si parce que on a vu récemment euh, match amical Sénégal Algérie bi billets yi problème la woon ñu ngi xalaat sax benn module boo xamante ni peut-être moo xam waxuma la match Sénégal rek mais ay matchu championnat wala nawetaan sax di nga ko mën a jëndee ci euh, plateforme bi. bu fekkee da nga am sa terrain bëgg mu bokk ci plateforme Clickfoot pour nit ñi di ci mën a réserver da ngay télécharger application bi rek. après nous contacter ñu au 77 445 44 64 de ce fait dinañ la activer le bouton boo xamante Il yow yaay dugal say information sur sa terrain Si vous tamit mën nañ la ko defal et ñu activer ko naka nous tamit ku bëgg tamit boutique di jaay ay équipement nga bëgg intégrer plateforme bi même procédé la même chose et enfin avons insisté euh, insister le euh, module ActuFoot bi nga xamante mi ngi ci plateforme bi parce que on donne les informations à chaud euh, ci lépp lu xew ci wàllu football ci àdduna application bi ñëpp lay yombalal maanaam ki nga xamante ni dafay louer terrain bi pour dem football yi daf koy yombalal parce que wax naa léegi ni dootul nekk di woote ci terrain bu nekk pour xam heure de réservation ñi moom terrain yi tamit daf leen yombalal seen liggéey parce que coordonner réservation yi dafa metti ndaxte du benn du ñaar nit dem na jël benn heure ñëw fekkaat fa yeneen équipe ñu jël même heure donc ki nga xamante ni moom mooy gérer terrain bi tamit daf ko koy yombalal ndaxte moo xam par bés moo xam par ayu bés mooy semaine moo xam par weer mën na am état wu réservation yëpp ak montant yi mu jot a encaissé donc daf koy faciliter comptabilité euh, donc daf koy faciliter tamit traçabilité xam ñaata heure la réservé par jour par semaine par mois déjà accord de principe avec euh, terrain Azak, aéroport le propriétaire Ley. Euh, accord de principe avec moi. donc démarrage bi parce qu'il il fallait que nous communiquions, lancer application mais on a déjà son accord de principe Nous avons mis en contact avec le directeur du stade de et nous remercions aussi le maire Bambofal parce que nous en avec et euh, monsieur Gay Amsatou il a été très ouvert moom tamit euh, il est très ouvert Nous ñu lancé application il est d'accord sur le principe. am na déjà benn boutique bu ñuy liggéeyal bu tudd Eldera donc gis ngeen équipement yi muy jaay ndaxte dama mës a gis koo xamante ne dafa ñëw di football si fàtte équipement woowu donc ma xalaat ne que lii ànd na réserver terrain ak boutique yi jaay euh, équipement donc mi ngi nii mën passé commande ici. wala donc nous avons leen di la euh, plateforme ce sont des conditions très simples parce que bon c'est vrai que kuy liggéey di nga ci mais à la base nous nous sommes des passionnés te application mobile yi àdduna fa la wow waaw terrain yi nag bari terrain yi bëri na lool euh, recensé nañ ci plusieurs des fois sax sa benn xarit wala sa benn connaissance moo la naan ah gis naa terrain bërëb sàngam gis naa terrain bërëb sàngam donc on va dire que à peu près nous sommes sur une dizaine de terrains te loolu c' est loin du compte parce que application bi mën na dem ba ci région yi mën na dem ba ci région yi tey jii par exemple benn club de football bu bëgg def benn match amical par exemple ak beneen club de football bu nekk ci région mais les dirigeants ou la personne chargée de l'organisation ou de la logistique mais mën na réserver un stade réserver un de telle heure à telle heure par exemple ou ont réserver un terrain et ça se fait et ce qui est le li ci c'est a euh, maanaam euh, yéeme mooy parce que c'est ces information yi ma am donc ils nañ ko yóbbu Burkina, Burkina Mali feneen ak feneen ak donc vraiment c'est loo comme invention révolutionnaire mais ça règle un problème tenu